Ousmane Sonko nga wax est-ce que nekku ci ay fait parce que ginnaaw UMS bi ñu bi ñu bi ñu àddoo ci mbir yi wax ci relevé na yenn yu mu jàpp ne xëy na lii mooy wane ni ñoom de bonne foi am na leen lu leen tax a jóg lu dul fexe ba justice ñu koy delloo comme lan askan wi d'abord ci lettre am bi dama lay liiral quelques passages yoo xamante ne même Ousmane Sonko moo ko fësal tey ah wax li tax moom mu gis ni ci dossier bi par parloo da ci am d'abord dafa ne comment ça se fait que njiital UMS di wax ni temps xool moom interview bi mu accordé suñuy confrère ci lu weesu ba pare wane moom ci waxtaan wi nii xëy na dégluwul les précédents alors que ñaari parti la moom la ak ñi ànd ak Adji Sarr rawatina moom Adji Sarr comment ça wax na moom Adji Sarr ni suñu justice bi ndax dañoo ragal nguuru Sénégal dafa ragal Ousmane Sonko et sur cette question mu tontu rek lu jëm ci Ousmane Sonko te parti bee mu ne moom bàyyiwu ci woon xel seetaana ko cest à loolu benn fee la d'abord nga ñëw ci dinaa ñëwal ci yeneen ay ay ay ay ay ay maanaam ay euh, mbir yu fi jaar yoo xam ne jàpp na ne UMS waroon na ci waxu ci par exemple cour de justice de la CEDEAO ci mbirum Khalifa Ababacar Sall wax na ci immunité parlementaire boo xam ne dañ ko violé di ko auditionné sans la présence de ses avocats wax na ci wax na également ci yeneen yoo xam ne dinaa ci ñëw mais d'abord ci mu étalé ne dafay wax fait rien que les faits sur te dégguñu ci UMS waaw dama buggoon préciser rek ne. su fekkee Ousmane Sonko moo bind loolu. waxul lu méngoo ak li am. Ah. man j'ai suivi personnellement le discours du président de l'UMS Chimère Diouf. un magistrat respecté et respectable boo xam ne nii. Hmm. xam naa ko bu baax parce que pratiqué naa ko. li mu wax mooy daf ne. Hmm. wax yooyu ñuy wax. ci acteur politique yëpp lañ koy gis. Hmm. kenn ku nekk da ngay fexe. di wut lay boo xam ne nii da ngay jéem a défendre sa nit. mais ñun justice du loolu moo ñu soxal justice bu ñëpp waxee kenn ku nekk mën ngaa wax lu la neex waaye kenn rek moo am sañ-sañ jël dogal mooy juge bi nga xam ne moom lañ jox mu àtte mu teg ci ne. Hmm. même UMS en tant que association. amul tey di joxoñ baaram ab juge d'instruction wala ab tribunal boo xam dañ ko jox dossier pour mu àtte ko comme pour ñëw rek sa deuxième sa deuxième laaj bi way loolu la wax le président UMS dafa wax nii en tout cas bu dee ni sorti am na ci Adji Sarr honnêtement aw moon temps wu lire ko oui d'accord mu ne comment ça se fait moom amul temps bàyyee xel lan la aji Sarr wax te jël temps xam moom Ousmane sonk lan la wax barki Dembo Ndiaye loolu aussi dafa mel ni Euh, deux poids deux mesures la. amul deux poids deux mesures le président Chimère li mu wax dafa leer moom boor yëpp la waxal waxul ak Ousmane Sonko rek bàyyi Adji Sarr waxul sax au delà di dossier de Ousmane Sonko sax yeneen dossiers yi sax da koy wax moom daf ne ñëpp ñi nga xam ne tey rawatina acteurs politiques yi dañuy am ay affaires kenn ku nekk tey da ngay organiser sa côté. di fexe yow nan ngay amee par exemple benn pression ci justice mais li war justice moom mu ne du UMS sax moo koy wax juge bi mais tribunal ak juge yi nga xam ne ñoo leen seeti ñoo am le dernier mot pour rendre la justice au nom du peuple sénégalais loolu dafa leer. Hmm. te loolu également dafay ñëw contredire monsieur Ousmane Sonko ci li mu waxaat également dans sa lettre ci ci lan. Hmm. mooy euh, gis nga euh, euh, affaire justice c'est-à-dire que tey UMS. association la wax na ko UMS cëram du tey cëram du tey juge d'instruction yore dossier mu naan ko da ngaa war a atte dans des délais raisonnables du cëram tey juge d'instruction yore dossier mu naan ko da ngaa war a appliquer décision cour CEDEAO du cëram tey tribunal wala cour d'appel war a atte ay avocat indi ay décision mu naan ko dangaa war a def li ah loolu du cëru déedéet du cëru UMS yi fi jaar yëpp ci ay dossier du ay cëru ma ne du cëru UMS gis nga loolu boo demee tey ci au niveau de la justice mais kon rappel bi lan la kon no non rappel bi xam nga lan la moom laa lay expliqué ak ci contexte bi nga rappel bi lan la xam nga rappel bi muy soog a def rappel xam nga bi lan la. mooy le discrédit bi nga xam ne ñu ngi koy jeter sur la justice ñu arrêté ko waxul ne kenn du émettre un jugement critique sur la justice parce que ñoo moom justice bi critique buy defar justice dañu koy jël mais discrédit discrédit moo baaxul. mooy maanaam la usman Ousmane ko wax luy sot lu ni dafa ne ci dossier bi ca la ca ne gisuma benn juge ma mën a. àtte tëj ma waxul loolu yem ci. Ah. loolu d'abord par moo modestie et humilité waru ko wax même bu ko xamee mais Ousmane waxul loolu am na lu mu ca teg su ñu ma woowee du ma ñëw. kooku c'est une défiance à la justice. amul benn citoyen non daf ne bu ñu ma waaw mooy loolu. quand tu es mis sous contrôle da nga am obligation conformément à l'ordonnance bi nga xam ne moom le juge bi jël motiver ko placer la sous contrôle judiciaire su la nee 15 jours yu ne da war a ñëw di da ngaa war a dem di signer soo ko deful défier nga justice discréditer nga justice. Ah amul benn citoyen bu ko am sañ-sañ Pape Ousmane fii ñu toog ni tey man ak yow. tey su amoon benn ordinance du juge bu ñëw ne arrêté l'émission en bonne di forme yow boo dee citoyen dëgg tënku ci yoon may citoyen tënku ci yoon dañ koy bàyyi. léegi nag kenn ku nekk am nga sañ-sañu lu la yoon may mooy lan ay voies de recours parce que décision de justice boo gis ñu jël première instance. am na deuxième instance am na cassation ba même cassation am na sax lu ñuy wax li nga xam ne mooy rabat d'arrêt donc man jàpp naa ne tey un citoyen de la trempe de Ousmane Sonko ma ko koy nangul parce que man du ma déni ji loolu tey mu yore ay responsabilité dans ce pays parce que maire d'une ville qui se trouve être Ziguinchor ne dafa am ay ambition pour jiite sa pays waruñu dégg ci gémmiñam muy wax ne su ko justice tegee dara du ko def parce que ëllëg te tey mu ngi ji jiite Ziguinchor damay joxe benn exemple boo xam ne nii Ousmane Sonko war na ci bàyyi xel bu baax. parce que moom la ñu gis principalement mu jeter le discrédit sur les institutions de la République. que ça soit l'exécutif à travers le président de la République et ses ministres que ça soit l'Assemblée nationale le président de la République ses ministres les autorités administratives gis nañ ko fi préfet sous-préfet gouverneur lu nekk yekk na leen ko fi ba maintenant le euh, les autorités judiciaires te tey gis nañu à Ziguinchor Ousmane Sonko maire de Ziguinchor a pris une décision boo xam ne ni moo ko apprécié souverainement fekk na benn foire boo xamee ne que ni moo ko autorisé dem na nee na l'objet de la foire ne correspond pas ak moom li mu autorisé jël na décision ne dafay mettre fin à la foire il s'est adressé à qui pour l'arrêter ko fan la dem. mais il fait la différence. mais dama lay wax fan la dem muy wax. ci institution yi nga wax dafay wax. non ñi nga xam ñoo koy pourrir. par waaw dama ne dama ne déedéet gis nga Ousmane Pape Ousmane Pape Ousmane. ci magistrature am na ñu gore. ñu mu xam ñu ma ne xam nga xam nga ña gore ca ñoom xam nga moom ña gore ca ña gore ca moom ma ne on ne peut pas y a pas de deux poids deux mesures Ousmane Sonko la ko arrangé rek lay wax mooy maanaam fu mu dem am fa satisfaction ñoo ñaa baax te justice du noonu kon dama ne la même autorité administrative bi mu diingat barki Dembo Ndiaye bi ñu koy installé le préfet ak les mêmes autorités policières et de la gendarmerie yi muy wax naan police su Macky Sall ak gendarmerie Macky Sall ñu tey ñoo dem mën koo tax mu mun a exécuter sa décision administrative en tant que maire kon kooku war na bàyyi xel bu baax le respect dû aux institutions de cette république c'est extrêmement important beneen bi voilà quelqu'un qui aspire à diriger ce pays vous pensez que tey su nekkoon président de la république cette justice va avec les hommes non qu'est-ce qu'il va faire demain si un citoyen sénégalais se comporte de la même façon que lui ñu woo ko mu ne duma wuy justice en tant que président de la République su ko defee xam nga lan la ñuy def dañ koy génneel vaar na def très attention un vrai républicain un vrai homme d'État ne se comporte pas comme Ousmane Sonko est en train de le faire nangu naa non non non je regrette je condamne moi je condamne avec la dernière énergie cette attitude anti-républicaine cette eh, républicaine cette attitude antidémocratique qui frise le, le, tout ce qui est état de droit de la part de Ousmane Sonko ce n'est pas acceptable kenn amul sañ-sañ tey ne justice bu ma wooyee duma wuy ji wala justice su ma tegee daan su ma tegee ay ay ay obligation duma ko def par contre mën nga émettre ay jugement sur la façon dont fonctionne ta justice justice. wax di ko joxoon le président Macky Sall n'a jamais jeté le discrédit sur les institutions la judiciaires. justice on se rappelle. jamais c'est un conseil constitutionnel validé woon on se rappelle ay waxam. le président ma ne dinaa la jox ah, benn exemple. waaw ma jox la benn exemple pour le la ne la ma waaw ma jox la exemple pour wan li nga wax yëpp ça tombe comme un château de hmm. cartes. c'est pas avéré. le président Macky Sall a été l'un des rares candidats en 2012 malgré li mu doon contesté parce que citoyen Sénégal mu ah. jàpp ne non ah. contestation moom laa lay wax non déglu ma eggalu ma dama ne malgré mu bokkoon ci ñi nga xam ne dañ noon non à un mandat de Ablaye Wade mais keroog ba nga xamee ne ko conseil constitutionnel jël na dogal il a été l'un des rares candidats à diir maa ngi dem campagne dem campagne moo ko may tey li mu am kon kooku mënuñu koo méngale ak ki nga xam ne tey mooy Ousmane Sonko te lépp loo wax ci justice mu saaga xaste wax lu ko neex loolu président Macky Sall mosul. am boobu comportement mais cette justice n'est pas exempte de tout reproche bu ñuy bàyyi xel ce dossier là. mais, mais d'accord mais mu yegg si fii. à la le ministre de la justice wax na ci. sur cette question aussi. Euh. dossier bu mel noonu nga ni euh, ci fi nga ci xam dara amu ci. waaw loolu tamit nu ñu koy comprendre su ngeen waxee ne nañ amee taxawaay bi. mais yéen seen biir aussi. il faut qu'on revienne ci li ma la waxoon ci départ bi. aucune justice au monde n'est à l'abri de critiques n'est parfaite c'est la justice des hommes une justice fait rendue par des hommes une justice faite par des hommes et qui s'applique à des hommes kon mënul parfait mais dañu ne discrédit ñàkk worma bi nga xam ne tey ñu ngi koy bëgg di teg ci justice bi ak yeneen institution yi du ndamam du ndamu kenn. lu koy jeexal arrangé wul kenn mais li koy jeexal mooy. Hmm. mu xam ne on est dans un état de droit. que état de droit moo ko may sañ-sañ tey mu toog di def conférence de presse war a am opinion mu wax ko mais état de droit mayu ko tey mu taxaw. di défier la justice di jeter le discrédit sur la justice mais également di ñàkk a wormaal justice déedéet il faut faire la distinction entre les critiques les opinions des citoyens sénégalais sur sa justice di wax ci ni muy doxee ak le jeter le discrédit sur les. Et comment comprendre aussi ce communiqué du ministère des Affaires étrangères quand il euh, euh quand il s'agit du fait que moom Ousmane Sonko yëkkati na passeport diplomatique ne kenn ah mënu ma parce que xam nga lu Ousmane Sonko a traversé les faits pour tromper l'opinion publique il appartient maintenant à au ministère des affaires étrangères en charge de la délivrance de ces passeports diplomatiques de rétablir la vérité. mënoon naa yem ci anam gi mu ko jotee mais yegg bay def conclusion du ci yem parce que. xam nga lu tax du ci yem. parce que dafa fekki Sonko ci raisonnement am Ousmane Sonko yemul rek ci am naa passeport diplomatique su ci yemoon. danañ wax fu mu ko jëlee ak nan la ko ame mais daf ne. maa ngeeg sama passeport diplomatique te heure bu ma neexee ma voyager. alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Mais